seen agence de voyage Minan Travel nekkee ci diwaanu Parcelles Assainies unité 7 ci wetu kaas bi dendee ak pharmacie Baraka bi yëngatu ci jaayum billet d'avion réservation de billets réservation d'hôtel demande de rendez-vous umra ziara Fès ay assurance de voyage assurance auto wala moto ba ci sa transport aéroport seen numéro téléphone di 78 171 0303 wala 76 517 10 10 seen agence de voyage Minan Travel moo leen di may li ci yéene kaay ci RGNTD du enquête 221 dal leen jàmm dalati leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko vox populi mi des waat ci décision bi nga xamante ni conseil constitutionnel jël na ko niki démb yéenekaay bi ne juróom-ñaari sages dañoo mujjee annulé décision yi nga xamante ni mu jugee ko woon ci assemblée nationale seen bëgg-bëgg nekkoon ñu randal élection présidentielle yi ba décembre conseil constitutionnel niki démb nag li mu mujjee décidé benn jafe tax nag ñu daal di dakkal élection yi wala sax di randal élection yi yéenekaay bi ne en boo seetloo décision bi conseil constitutionnel jël laa la wax dafay mayaat beneen sens na président Macky moom tekk tekkaaral la def laa la wax ci décision bi conseil constitutionnel daal di jël mbaaru dafa am lu ko ci naqari li wéttur daal mu di décret présidentiel bi mu jëloon te doon convoqué na corps électoral bi daf ko annulé woon depuis le février conseil constitutionnel jàpp na président ko annulé yéenekaay bi tamit dañu xamal ne juróom-ñaari sages yi day jàpp nañ ne élection présidentielle yi mënuñ ko maintenir le 25 février waaye nag jël na lépp jébbal ko nag autorité yi ngir ñu daal tànn date bu baax ci na mu gën a gaawee ngir ñu mën cee organiser élection présidentielle yi li wér te wóor moo di président Macky moom mandat mu ngi jeex le avril 2024 conseil constitutionnel nag ci seen décision démb bii ñu ngi ciy ne mandat boobu mënuñ bi nga xamante ni nii assemblée nationale jëloon nañ ci dogal jubbanti ko jël président Macky Sall jox ko juróom-ñeenti weer ngir mu mën koo toogaat ci réew mi conseil constitutionnel mujjee gàntal di mel jàpp ne Macky bu mandaam jeexee rek jeex na amul droit amaat beneen jour de plus kon ñoom député yi proposition de loi boobu nga xamante ni président Macky Sall ci am prox ndoolu toog fi juróom-ñeenti weer conseil bi nag mujjee na koo gàntal ndax conseil constitutionnel fi mu sukkandiku mooy durée de mandat président de la république kenn mënu koo wàññi waaye tamit kenn mënu koo yokku président Macky moom le avril lay jeexal mandaam kon li ko war jamono ji nag moo di waajal boppam organiser élection présidentielle yi dem yoonam ba tey yéenikaay bi ne en tout cas avant ñuy xam ne élection présidentielle yi maintenir nañ ko bay jot sax décision bu conseil constitutionnel li ñu njëkk a seetlu moo di vague de libération ñeel ay détenus politiques yoo xamante ni ñu ci bëri ñu leen jàppee ci wàllu manifestation yéenikaay bi di ñu bàyyi nañ ko Alioune Sané bàyyi nañ ko Oustaz Assane Seck bàyyi nañ ko Nit Dof bàyyi nañ ko Yarga Si bàyyi nañ ko Fadilou Keita bàyyi nañ ko Jamil Sané bàyyi nañ ko ak yeneen i détenu politique Seydi Gassama moom di xamle ci biir yéenekaay bi ne coowal amnistie bi may dégg ci biir dëkk bi mais wa ngeen teg ko ci suuf de amul benn sens d'accord ci tey d'accord ci ëllëg bés bi la journée libération yi bari na de président Ousmane Sonko nag boo maytul moo ciy topp gannaaw ba ñu génnee Fadilou Keita mii nga xam te ni ku ko jege la woon yoroon sax programme nemmeeku tuuram bii jàppee ba léegi mësuñ koo may sax liberté provisoire ni ki démb nag am na liberté génn na ci kaso bi yéenekaay bi di xamle ne lii de un pas de plus la ci sorti président Ousmane Sonko boo moytuwul ci week-end bii président Ousmane Sonko génn ci kaso bi ba tey yéenekaay bi des ci annulation reportu élection présidentielle yi nga xamante ni conseil constitutionnel décision bii ñu jël laa la wax siggiloo na Sénégal askan bi ñu ci bëri am ci mbégte lool maintenir gi ñu maintenir élection présidentielle yi ne processus bi amul benn jafe-jafe nañu jàpp datu élection ci na mu gën a gaawee candidat yi dem campagne yi ji comme ça ñu mën a dem voter ji balaay mandat yu président Macky Sall bii di jeex le 2 avril en tout cas conseil constitutionnel sàkku na ci président Macky nag mu jël date bi ca na mu gën gaawee leneen li ñu seetlu tamit ca conseil constitutionnel mooy am na benn juge boo xamante ni signéwul di magistrat bii di Cheikh Ndiaye moom mi ñuy tuumaal mbirum ger ba mu déposé woon plaintam bii nga xamante ni jamono ji ubbi nañ ci enquête lii nag bokk na ci li tax démb signéwul laa la wax communiqué bi bu ñuy xool nag décision conseil constitutionnel bii te mooy maintenir élection présidentielle yi bu amee ku ci perte kenn kasa lay doon muy Karim Meïssa Wade Badjo bokk tey du bokk ëllëg ci élection présidentielle yi commission d'enquête parlementaire bañ taxawaloon amatul sens proposition de loi ba nu voté woon amatul sens Macky du fi toog neuf mois le avril bii lay jeexal daal ñuy abal Sénégal yéenekaay bi ne keneen ki jaral laajte kay ndax dina bokk ci élection présidentielle yi mu di Rose Wardini Abdou Mbow bu Benno Bokk Yaakaar nekk président commission d'enquête parlementaire bi kon nañu koo def ba léegi si enquête yéenekaay moom def taxaw sell ci décision bi conseil constitutionnel daal jël wan ginnaaw bëgg-bëgg président Macky Sall bi te moo di toogaat fi juróom-ñeenti weer yéenekaay bi na conseil constitutionnel de mujjee naa yàqal Macky jël na yaakaaram tas ko ba noppi nag daat koy imposer mu jël décision ci na mu gën gaawee ci élection présidentielle yi jàpp date comme ça campagne bi mën a tàmbali yéenekaay bi def ay précision te nag ñu daal jàpp dat na mu gën a gaawee yéenekaay bi ne en démb ci alxames ji dey bokk na ci li ci gën fës nag libération détenu politique yi ak décision bu conseil constitutionnel ay démb tam am na ay audience de ay acteurs politiques ay leaders politiques yoo xamante ni doon jaabante démb ca biir palais ba jamono bi sénégalais yi nekk di concentré ci information bii jóge ca conseil constitutionnel am na ci ay responsable politique yoo xamante ci ne en tout deram ci yàq gi ñu bëggoon a yàq deram ba pare sauver Sénégal gii nag ci décision bi nu bëggoon te mooy ñu maintenir élection yi yéenekaay bi ne en tout cas conseil constitutionnel nee na président Macky Sall du ñu prolonger laa la wax mandaam mandaam bu xasee jeex rek jeex na waaye bu ñuy jàngal décision bi conseil constitutionnel jël aka leer sax lu leer naññ la teg benn moo di processus électoral bi amul benn problème ñaar mooy ñu sant autorité yi ñu jël date te na mu gën a bi moo di fàttali président Macky Sall mii ne ko mënoo fee toog lu jéggi laa la wax 2 avril maanaam fàttali na ko ne ko mandaam jeex na yéenekaay bi conseil constitutionnel day revanche am la doon jël gannaaw ba ñu jëlee ay accusation yu diis teg leen ci seen ndodd rawatina lu jëm ci wàllum corruption ñaar ci ay juge Cheikh Tidiane Coulibaly ak Cheikh Tidiane ñu leen di tuumaal mbirum ger vilipande leen yàq seen der démb nag moom defar nañ seen der ba tax na yéenekaay bi dañu xamal ni juge yi daal ñoom dañoo jàpp seen fulla rek bàyyi ba waxtu bu baax bi daal jël seen décision boolewuñ ci wax ñeenti li ne mel nag juróom-ñaari sages yi nañ ko yàq Amadou Ba bu Pastef di xam ci biir yéenekaay bi ne organiser ay nag le février mënul nekk waaye li ñu gën ëppal solo mooy juge yi ñu ngi fàttali président Macky ne ko sa mandat jeex na ay waxtu rekk kaserog moo ci des waaye ba tey yéenekaay bi dañu xamal gis nga conseil constitutionnel bokk na ci ay décision sant autorité yi ñu jàpp date bu bees est-ce ne juge yi dañoo bind na am na benn assemblée bu fi nekkoon député ya nguur gi dañoo bëggoon a yokkal président bi juróom-ñeenti weer waaye conseil constitutionnel moo mujjee dakkal mbir yi waxuma la rejeté na proposition de loi bi waaye décret ba président Macky Sall jëloon le 3 avril tamit annulé na ko jënikaay bi na am na lu xajam tamit ci assemblée nationale de seen commission d'enquête parlementaire bi bu ñu sukkandiku ci seen président Abdou Mbow nee na ministre de la justice amul ne procédure judiciaire ubbeeku na ñeel plainte dañuy dakkal seen liggéey waaye ñoom commission bi nee nañ ba léegi si jotuñu notification maanaam dañuy continuer seen liggéey li tax président Macky Sall na tekk tekkaaral ci décision juróom-ñaari sages yi niki démb mbaadu dafa am lu ko naqari te mënu koo wax en tout cas li wéttéer moo di article bu constitution bi gaa yi koy ŋawti ŋawtee de boo moytu dinañ ko appliqué de yéenekaay bi ne candidat yi war a dem ci élection présidentielle bi nag ñoom ñëpp presque laa la wax apprécié nañu décision conseil constitutionnel l'observateur def taxaw seetlu ci détenu yi nga xamante ni libéré nañ leen niki démb lim gi ni mu takkoo est-ce que président Macky Sall moo leen libéré wala justice ci boppam moo leen libéré ñoom détenu politique yi daal koo ci déglu lim lay wax lenn la mooy le combat continue maanaam fas yéene wu ñëw teggi seen tànk ñoom sax li nekk seen bopp moo di nañ leen jàppee woon teguñ ko ci yoon génikaay bi des ci décision conseil constitutionnel bi nga xamante ni décret président Macky Sall ba mujjee nañ ko jël lem ba mu jekk daat koy tegee côté tracé droit nag jàpp na élection présidentielle yi war nañ ko def ci fan yi ñu jëm ñoom juróom-ñaari juge yi di xam ne ci biir yéenekaay bi de nañu jàpp yi ca na a gaawee ndax avril lay mandaam di jeex war na organiser élection yi balaa le 2 avril xeex bu yàgg bi tamit loolu na bu amee ñu ci perte weesuul Karim Wade ak ñi àndoon ak ñoom nag ci report élection présidentielle yi source aana élection moom du am le 25 février waaye nag dina am nag balaay président Macky Sall mandaam bii di jeex le 2 avril te li ni mel na conseil constitutionnel dafa ci réewu ci sàkku na ci autorités yi nañu jàpp dat ci na mu gën a gaawee moom président Macky Sall nag moo a jàpp dat bi te bàyyi xel na bi muy jël tam candidat yi war nañ koo lu mu néew néew ñaar fukki fan ak benn benn moom président Macky Sall mi nga xamante ni moom kase rek dong moo mën a convoqué nag corps électoral bi buy jël décision tamit ci jàpp datu élection présidentielle yi war na bàyyi xel fichier électoral bi ne candidat yi war nañ ko jot 15 jours avant calcul yi yépp président Macky Sall war na ko def war na tamit convoqué administration bi xool ndax matériel ya ñu jëndoon lépp laa la wax disponible na donte ñoom nag defoon nañu tirage bulletin yi waaye war nañoo càmbaraat tamit matériel yi ñu jëndoon yéenekaay bi ne en tout cas élection présidentielle yi daal li weesu diggante le 3 ak le fekkee bëgg nañ ko organiser avant président Macky Sall mandat bii di jeex te deuxième tour bi tamit du jéggi benn semaine après élection présidentielle yi dañu koy cooli du loolu mooy président Macky Sall waxagul cooli cooli foofu la nekk est-ce que dina apprécier nag décision bi conseil constitutionnel jël lii kay moo jar a laaj ci fi mu toll nii <laughs> yàlla baax na jee dëgg yi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 gaawal rek jokkoo ak pharmacie Al Maktoum yow mi tëlee amee faiblesse sexuelle doxal nànk dem ba ci pharmacie Al solution bi fii la fekk baax pharmacie Al ay produits disponible na partout Sénégal ak sax ca bitim réew bu dee yéen ñi nekk Sénégal jokkoo leen ak maam Cheikh Tidiane Diop numéro bi di 77 604 07 71 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Espagne Barcelone ak li jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro bi di plus 34 602 ñu nekk ci diwaanu France Paris ak li ko wër woote leen ci plus 33 744 75 08 39 yéen ñu nekk ci diwaanu Angleterre woote leen ci plus 44 77 22 08 89 57 yéen ñu nekk ci diwaanu Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indi nañ leen savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum mbokk yi yéen ñu amoon jaaxle-jaaxle ci seen wàllu wér-gu-yaram tolof-tolof ci seen dund ci seen wàllu liggéey ba ci seen wàllu sëy solution bi ñëw na ak sëriñ Serigne Modou Khary Mbacké boroom yàlla baax Serigne Modou Khary Mbacké dafay def listixaar bu wér te wóor te leer nañ ñi day def tamit seet façon seet yépp daf koy def moo xam bu biddiw rawxaan kurus suuf waaye tamit képp koo xamante ni am nga gàllankoor am na fi ay sangat yu la mën a jàppale yow bi bëgg bayre la cat la nga bëgg wërsëg ubbeeku fii daal solution la am na ay jaaro cat jaaro kaarange jaaro wërsëg jaaro bayre yow mi am jafe-jafe doom yow mi bët sonal lool soxna si bëgg a ëmb te am jafe-jafe jigéen bi am jafe-jafe ci wàllu réglam yow mi say nopp di riir kuy fatt saa su nekk Serigne Modou Khary Mbacké dina la jàppale waxuma la dara sax waaye dafay toj liggéey di di tooke ci yaram yow mi am bëñ bi metti ku paralysé mu xam xale nga wala mag yow mi boroom yàlla baax dafay faj tamit ay rab di def ay traitement ci wàllu yaram yow mi tële nag wala boog nga gaaw a solution yu gaaw nga yor hémorroïde wala nga bëgg bayre njaay fii ñëw gis fi solution adresse am nag mu ngi ci diwaanu Kër boo fa yegsee foo laajte Serigne Modou Khary Mbacké boroom ko pour jokkoo ak moom tam mën ci numéro yi di 77 126 10 77 wala 77 609 10 41 ak Serigne Modou Khary Mbacké boroom yàlla baax ku jokkoo ak moom gis solution ci say problème jaaraama Serigne Modou Khary Mbacké boroom yàlla baax Goedemiddag.